gën a méngale ak jamono wàllum courant ci biir réewum Sénégal paaw ñu gën a promouvoir énergie renouvelable nu ñuy jotee ci courant gi ak la nga xam ne ni mën nañu ko jural. C'est une nouveauté qui va se concentrer essentiellement waaw loolee kat lu bees loo xam ne day concentré essentiellement ci li nga xam ne mooy ay séances yu tourné ci li nga xam ne mooy énergie renouvelable yoo xam ne day tax ñu gën a wàññi lu ñu tuddee rek facture électrique waaye gën a développé li nga xam ne moo tukkee ci euh, ngelaw li ak ci ndox mi. de waaye ngir loolee mën a antu faw ñu tàggat ay ndaw ci wàllu woowee looloo tax ba gouvernement bu Sénégal samp ci biir réew mi ay institut supérieur d'enseignement professionnel ngir ñu tàggat ci ndaw ñi. qui doit passer du stade loolee dafa war a jaar ci loo xam ne kat ay jéego la yoo xam ne ci wàllum compétence ak ay talent yoo nga xam ne daal ci euh, doomu aadama lay nekk waaye tam ci lu bëree bëri kon war na ñoo mën a fexe joxe li nga xam mooy facteur ci lu bëree bëri ci wàllum technique ak ci wàllum science te loolee sax mooy source bi nga xam ne mooy tax ñu am as tuut ci biir ak ci biti. ak ndaw yi nga xam ne nii léelée bu ñu amee seeni i dañuy am jafe-jafe ngir xam ban formation moom la ñuy suivre mu am solos lool ñu mën leen xamale métier yu bare balaa rek ñu mën a àgg ci boobu l'étape. Il va finir par y avoir un ISEP dans chaque région. waaw dafay rek am jeexital ci fexe daal am ay ISEP ci région bu ci nekk waaye tamit euh, loole ci ñaari at mi ngi nii majorité yi nga xam ne ñoo am ay lijaasa ñoom dal leen capté ci li nga xam ne kat mooy àdduna bi ñoo xam ne kat ci noonee lan leen tàggat. le monde vers lequel naam ci ndaw ñi ku ci am bac bëgg nga dem ci daara yu kawe yi waaye waruñoo tànn ab domaine ndax dañoo bëgg a jàng rek ba tax na tàggat ndaw ñi ci choix bi nga xam ne ni moom la ñu am gannaaw bu ñu amee bac am solos lool ngir ñoom ñu le ñu mën a préparer seeni avenir